daa leen ko wax di yàgg naa leen ko wax di xam ne nga am taw tawfeex rek lañ ko may xaas la ñu am ñoom ñun fekk nekk nekk ci liggéey xas nekk ci xas yi xaas la ñu am xaas la ñu am bu wér wér wér loo xam ne taw bi lépp war nañ see te ngeen ci fàggu waaye nag dañ fa bale xaas xaas ngeen am waxuma tawfeex tawfeex ku bëgg sëñ Tuubaa am na waaye yéen xaas ngeen mbokk yi topp bidaytul xidma xam ngeen ne démb ñoo ngi daanee woon ci wa xallini l yawma min al axyaari wa xallini taxliyat al axyaari yow yàlla yàlla nag ma ragg ba ma set wi ci tey ji ci lépp luy nox-nox yàlla nag ma takkaayalal takkaayug gaañu baax ñi maanaam daal lañ daan takkaayoo jëm ci seen borom na ma ko takkaayal bis tey ji loolu nag moom lay wax ne takkaayal gi koy suñu borom takkaayal bi jaahi ci darja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yow yàlla boo ma koy takkaayalal na ma ko takkaayalal bi jaahi ci darja moom yonent bi yow yàlla wasalli maa ngi lay ñaan nga julli summa gannaaw ba nga jullee sëlli mi na nga sëlmal ali ci kaw yonent bi wacxal nii yàlla nag ma def bii ci darja yonent bi ka ayla mi ma mel ni géej tur la ci turu géej yi mu ne yàlla maa ngi lay ñaan nga julli gannaaw ba nga jullee julli gi na ànd koog sëlmal waaye na ko sot ci ko yonent bi waaye yàlla nag ma def ci daja yonent gis nga eh, da caa bokk ay lam ci turu géej la maam loolu ci xam-xam rek la ci jublu maanaam loolu kinnaay la rek ci bëri maanaam daal naa bëri xam waaye naa mel ni géej ci bari waaye waaye ci mën a jëriñee maanaam naa ko mën a jëriñee noonu waaye naa mel ni géej ci xam-xam xam nga xiddam ak ayilam ba daanaka mel ni firi la moo tax mu ne wàcc xal ni yàlla na ma def bii ci daal yaa bi ka ayile ma mel ni géej nga xam ne kon xam-xam bu bëri rek la ci jublu waxab yàlla na nga may lii ñel ma bi jaay yi ci darja jaay bi futuha ay futuhat wal turu nii yàlla nag ma wan maxtarta li nga xam ne tànnal nga ko lii ñel ma tasrihat ci ay tasrihat mu ne yàlla yàlla na ma may ci darja yonent bi ay futuhat futuhat mooy loolu def naa ne yàlla may na ko bu ngeen di xool tukki bi fi mu jaar yëpp yëpp yëpp yëpp jumaa taxaw na fa loolu mooy ay futuhat yonent bi salaay salaam gis nga bim gàddaayee ba dem Madina mboolem fu mos a dem ci xare ngir lokk yéeféer ña rey yéeféer ñi ngir dugal fi lislaam tey dugg na fa googu xan yi wër yi Makka yëpp tey fu ne gannaaw yàlla yonent bi moo ko moo xarek ñoom bañ dugg ci lislaam bi fi yonent bi bàyyi ko itam bàyyi ko Abubakarin ba jamono Seydina Omar Ali Osman yëpp gën a lislaam ci Kuufa ca Saam fépp tey lislaam dugg na fi ngir ngir sabab boobu rek tasiriyaat suñ ko waxee mooy fi muy dem fu ni mu dem ngir lan bëgg faa yaata lislaam te fu ne boo demee ci Gabon nga dem Ndakaaru ñi ne Ndar dañ naan la sëñ mag bi jaaroon na na fi am na lu ñu fi cërlee am na fi cant am na fi nangam loolu mooy ay futuhat xam ne baral ba yoo xam ne bañ ko fay jaar dañ ko fa jaaroon ngir alak ko su ko defee nag léegi moom kenn xamul kañ la génn jamono waaye fu ne ba léegi ñu ngi koy màggal xam nga loolu ay futuhat la loolu tabaraka la mooy futuhat mu ne yàlla ma ci dara yonent bi ay futuhat waaye yàlla nag ma wan li nga ma tànn lép lépp lépp ci ay tasriyaat ma di ko def tasriyaat mooy leeral yi muy leeral lislaam jamono jii fu ne mu dem rek ngir bëgg fa ay futuhat ngir yàq lislaam mu gën a yaatu mu ne loolu yëpp nag ma ko wan nga xam ne kon fu ne tabaraka nekk tey moom bi xam ngeen ne ci mbégte rek lay dund ndax lim fi bàyyi ñi ngi ko koy sàmmal fi mu nekk ko fi mu jaaroon yëpp tey soppi nañ ko mbégte di ko màggal moo tax man waaw ay futuhaat futuhaat ay futuhaat ay hubbee wala tourné yàlla na ma wan ma tàtta lépp loo xam ne tànnal nga ko lii ñaan ma tasiriyaat ci ay tasiriyaat mooy leeral yi may def fu ne ma dem fa ngir dugal fa loolu yàlla na ma ko wan yow borom bi nga xam ne kon fu nekk rek yàlla mi ngi ko koy wan waab yàlla nga may lii ñeel ma asukoon ak dal fii maa lépp loo xam ne ixtira tànnal ma maanaam lépp li nga ma tànnal nanga ma ak sukkoon ak dal ba ma ci mën a lor kenn du ma ci a jëlee xam ne li nga ma tànn rek ci lay yem waaw du ma du ma tiit du ma raf-rafi li nga ma tànn rek ci lay nekk nanga ma may ak dal ci li nga ma tànnal waaye wakun yàlla nga doolee nekk lii ñeel lii ñeexal ma bi hurmatil musammili ci xormaay ci barkeb aji sangu ja aji muuru ja tur la ci tur yonent bi jàng ngeen ci suuratul musammili laataa waxyu gi di ko njëkk a dikkal moom la ko yàlla tuddee musammili ngir lan sangu gam sangu woon gannaaw ba ma demee ci xadija donte duñ ci yàgg nag mu ne na ma may ak dal ci lépp loo xam ne tànnal nga ma ko waaye yàlla na ma doole nekkal bi hurmatil musammili ci xormaay aji sangu ja nga xam ne nam sangoo moo tax yàlla na ko yaa ayyuhal musammili ee eh aji sangu ji xummi ila qalilan bul nelaw jogal qum layla ila qalil nisfu aw unqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartilan loolu la la taxoon mu wàcc nga xam ne yonent bi ñun tey jullik mu nekkee nga xam ne yàlla dana ko woon bu guddi gi yaay xool ñett xaaj nga koy def su la neexee ñaar yëpp nga naafale ko bi nga nelaw nga naafale ko nga xam ne kon lu la neex def waaye nag mujj gi nag suñu borom tabaaraka wa taala folli na laay yooyu ci bëri folli na lu demee ne fa qur'u ma taysara min alqur'ani allima an sayakunu minkum marda tabarakallah nga xam ne kon yonent yi moom faratuloon ci moom waaye nag léegi moom dañ ko yombal mu ne wasaleen yàlla na nga julaan lii ci kaw yonent bi taslim nga ànd kook sëlmal wa jut na nga tabe yàlla nga may yow yàlla yi ñal ma bi sitqi ci ak dëggu wa ak mucc mu ne yàlla yàlla na nga julli ci kaw yonent bi julli gu ànd kook sëlmal te yàlla na nga ma may ak dëggu ak mucc yàlla na may lii ñal ma asihata ak wér wak fi ni yàlla na nga ma fegal almaral ak tawat waab yàlla na nga may lii ñal ma atay siira ak yomb-yomb fii xayri fii xayri xarat ci sa ci ngën ci xememteef fi ci biit ngën ci xememteef fi mu ne yow yàlla nag ma may ma wér am yaram wu wér waaye nag ma nag ma fegal tawat bu ma tawat dal mukk waaye nag ma defal taysiir ci sama biit bépp xememteef bu ma xe bu ma xemem rek maanaam bu mu doon loo xam ne day dëgër ndax ñaaral nit mën naa xemem loo xam ne day dëgër ay jafe-jafe rek la koy jural moo tax ne waab yàlla nga may lii ñal ma asihaata ak wér wax fi ne yàlla na ma fegal waxab yàlla nga may lii ma atay sir ak yomb-yomb fii xayri xarat ci sama biit bépp xemamteef yaa rab naa yow sunu borom yaa rab naa yow sunu borom yaa rab borom yaa rab naa yow sunu borom yaa rab naa yow sunu borom kun yàlla na nga doolee nekk lii ñeel te yàlla na nga doolee nekk maaye di ànd ak man min saa ihil mi li ko tàmbalee ci bii bis ilaa mooti ba rek samay faatu wana jine yàlla nag ma musal xaddan ëllëg yowmal xiyaam minal balaa ci lépp luy balaa mu yow sunu borom bi woo yàlla ci juróomi yaa rab a mu ko yàlla nag ma doolee nekkal fii cëduna lu ma bëgg rek nga defal ma waaye nanga ngay ànd ak man jamono ji nekk fu ma jàqee rek moo la wooyee rek gis la nga dimbali ma li ko tàmbalee ci bis bii ba rek may faatu ko defal waaye nag mu musal ëllëg yomal balaa njàqar yeeg tiis tiis yépp nag mu ci musal waaye nag musal googee bi jaahi xayril aalamiina loo xam ne yëj lu bu lii ñeel ma ma bijjal maanaam taradduda ak déngi-déngi mu yàlla yàlla nag ma fegal yàlla nag ma dàqal lépp loo xam ne bu ñëwee ci man man na maa bijjal mën na ma bijjal ak déngi-déngi ba tax loolee yonent bi indil ma wala lu baax dikkal ma du ma ko jël ngir da ca déngi-déngi yàlla ma ko dàqal am na kon ñaareel suñu borom loo xam ne maanaam lépp luñ la digee rek nga cay déngi-déngi ndax lii lu baax la ndax lii nañ la ko diglee la loolu baaxut yàlla nañ ci yàlla musal mu tam ne watrudaa yàlla na nga dàqaan yi mu lisama lépp loo xam ne yejuru dana bijjal lii ñeel ma tarduda ak déngi-déngi waaye dàq ngi nag di jaay ci daraja yonent bi ba tey waa yàlla na nga julli afdala salaat ngën ci julli ali ci kaw yonente wacc xal ni yàlla nag ma def bii ci daraja yonente minal huda ma bokk ca mu yàlla maa ngi lay ñaan nga julli ngën ci ak julli ci kaw yonente waaye yàlla na ma def ci daraja yonente ma bokk ci woy gindeeku ñu ña nga xam ne mënuñuy mënuñuy dëngati nga xam ne dañuy jub kocc wa yusri yàlla na nga yombalal alkitaaba téere bi lii ñeel ma wa kammili yàlla na nga dollee matal jumlatama mboolem lépp loo xam ne ibtadaxtuhu tàmbali woon naa ko min xamali ci ay xeeti jëf mu ne yàlla yàlla nag ma yombala tiir bi di alquran ma di ko jàng di ko tartil la yàlla digle yépp ma di ko def waaye yàlla nag ma doole matalal mboolem lépp loo xam ne so tàmbali naa ko ci ay xeeti jëf yoo xam ne benn bu ci nekk ak sa jëfi morom la lépp moo fent ko ngir rek tàmbali ko ngir war ko def yépp yow yàlla na yàlla na ma ko doole matalal mooy naal mi rek la ci jublu naal yi eh, léeg-léeg ñi ñaanal sëñ Muntaxa yàlla na fi doole yàgg ngir la naal yi mu naal yëpp yàlla yegg loolu lay sëñ di wax moo tax wa kamil yàlla na ko doolee matal jumlatama mboolem lépp loo xam ne ibtadaxtoo tàmbali naa ko min amali ci lépp loo xam ne xeeti jëf la wahab yàlla na nga may lii ñan ma a tartila may ko jàng na ma safara ci lépp loo xam ne yesuru nii dana ne yàlla nag ma xaar an kulima ma wëlis lépp loo xam ne laa yen fa mu may jëriñ waaye nag bi jaay ci darja yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne yàlla yàlla na ma may may tartil alquran waaye di setantal max naa ya na ma ko may ba may faatu waaye yàlla na ma may ak tuuxlu bala maa faatu na am li ma bëggoon lépp ci lépp loo xam ne daf may bigal daal naa ko am waaye ba noppi di ma jëriñ waaye nag ma xaar ma sëri yàlla na ma aar ma wëllis yàlla nag ma aar ma bàyyi lépp loo xam ne maanaam doonut loo xam ne daf may jëriñ waaye nag ma xaar xan kulli ma ma wëllis lépp loo xam ne laa yenn fa déet bu bi jaay ci darja yonent bi wana jini yàlla na nga musal min kulima ci lépp loo xam ne yesoo u dana ma naqare fii ni ci bit ñaari kër yi muy ko àlaxira rabbi yow borom karama ci say tiraga say tiraga mu na nga musal mboolem ci lépp loo xam borom xam ne mooy njiitul way ragal yàlla maa ngi lay ñaan nga julli tey sëlmal ci luy sax ba faw ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne boolem ñi nga xam ne maanaam ñu ragal yàlla leen mooy seen jiit waaye nag turam dëgg-dëgg nag mooy ahmad gannaaw bi nga xamee ne sëriñ bi wax ne ne yow suñu borom jullil ci kaw yonent bi nga xam ne mooy imaamil muttaqina turam nag mooy ahmad léegi nag salaatu googu moom lay continuer moom jëmi sëriñ bi radiallahu anhu moo tax mu ne wa alihi wa sahbihi alkiraami wa najjini bihi min almalaami mu ne salaatu googu yow yàlla ma sàkku cee nga julli ko ci kaw yonent bi nga xam ne mooy njiital mboolem way ragal yàlla ñi turam mooy ahmad nee na salaatu gi waa ali na ñëw ba ci waa këram ñëpp wa sahbihi ak sahabaam yi nga xam ne alkiraami way tedd lañ da leen tagg waaye wane ji ne yàlla nag ma mosal bi ci darja yonent bi minal malaami ci lépp loo xam ne ak yeddaange la yow yàlla nag ma ci musal mu ni salaatu gi ni ñëw ba ak saabaam yi nga xam ne ñu tedd lañ waaye lépp loo xam ne ku ca nekk mën nañ laa yedd fii ci àdduna wala ëllëg yomal xiyam yàlla musal ma ci loolee du ma ko jublu loolee moom it bu mu ma jublu moo tam ne war na ci ne yàlla na musal bii ci darajaa yonent bi minal malaami ci lépp loo xam ne xeeti yeddaangi la waqbal yàlla na nga nangul bi jaay yi ci darajaa yonent bi yow yàlla tihi yii muy sama njëlbeenu tàmbalee liggéey yonent bi maanaam jëmmi xasida bi bidaayatul xidma la ci jublu yàlla yàlla nanga ma nangul ci ci darja yonent bi xasida gi tudd bidaayatul xidma moo tax tihi gi ismul isaar la li muy isaar rek mooy bidaayatul xidma jëmm xasida gi ci boppam moom la ci jublu moo tax mu ne waqbal yàlla na nga nangul bi jaay ci darja yonent bi tihi gii al bidaaya te mooy sama njëlbeenu tàmbaleel liggéeyal yonent bi te mooy xasida gi waaye waxab yàlla na nga may liman ñeel képp koo xam ne yaqaru aha dana ko jàng moom xasida gi wilaya ak wilaya kon xasida gi borom ci boppam moo ñaan kuy jàng xasida gi moom nga am wilaya wilaya nag bokkut ak woote lu wuuteeg wilaya lam doon ñaan déggoon ngeen ci xasida matul fawsi wa najjinaa bi jaayi min daxwa wala takfi annaa kasiban wala naxwa bokkut ak ñi nga xam ne dañuy toog toog rek ay fen ak i fo ak tappale lu ne ñi di ko woote te lépp ay kàcc rek la loolu ñaanu na yàlla na ko nag ñu musal ci darja yonent bi ci lépp loo xam ne woote loo xam ne amul la maanaam nag ñu ci musal kon jëmmi xasida gi képp koy jàng dalay may wilaay wilaay nag mooy méngoog sa borom rek nga xam ne doo mën a génn tey diglig yàlla maanaam loo wooteete rek maanaam doonu loo xam ne lu bees la waaye nag dafa wuuteeg li nga xam ne moom nit ñi ko jàppe wilaay mooy toog taw rek commencé sa feeni bopp di créer sa euh, lée nga xam ne léegi lu mel ni mujjanteelu jamono gi man ngeen ñu bari léegi ñooy almasihu dajal ci télé yi la ñuy lu ne ñi di woote woo fu ne sax gis nga jëlal naa leneen waaye kuy woote ne ab yonent laa sax fu ne dégg nañ ko fi boo waxuma ne sax kuy woote ne ab yàlla la waaye yonent dégg nga fi lu ne ku koy woote kon kenn ku ci nekk di woote woote yi nga xam ne kàcc fenak fen ak fo rek ak tappale ngir lan poñetik adduna rek te loolu dara jar ko kon xajari ku koy jàng da koy may wilaay mooy mingoog boromam faloog boromam tabarikalla ba lépp lu mu defet ko jàng moom ko si digg wane ji ne yàlla moo musal bi bi ci daraja yonent bi minal xufooli ci lépp luy càggante wa jumlatil uyub bi ak mboolem ayib yi wal fudóoli ak caaxaan yi mu ne yàlla yàlla na ma musal ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lépp luy càggan càggan nag mooy ñàkk a tudd yàlla la suñu borom waxoon yonent bi na ko wasku rabaka fi nafsika tadruhan wa xiifatan wa doonal jaxri min al qawli bil qudwi wala saali daal dina ko wala tukun min al xaafilina del borom di ko toroxlul fa tabarakallahu bul bokk ci way sàggan yow yonent bi foofu la borom xam-xam yi ne kon ku tuddul yàlla yaa ngi càggan moo tax mu doon ñaan ci xasida waasina al insaan moom jëmmi sëriñ bi fa may wax naan wana jine minal xufooli wal xawar yàlla yàlla na nga musal ci lépp luy càggante ak neen kon ku du tudd yàlla rek yaa ngi ci càggante waaye yaa ngi ci yaa ngi sax dàkk ci neen yi yàlla nañu ci yàlla musal moo tax man yàlla na nga musal ci lépp luy càggante muy ñàkk a tudd yàlla ak mboolem ayib yi moo xam saahiran wa batnan lépp nag ma ci musal waaye lépp loo xam ne maanaam ay fola ay waxi fo lépp nga xam ne amul tiyaa ba sax nag ma ci musal loolu mooy fuddool ay caaxaan wa sayran yàlla nag ma mujjal bi ci dar bihaa ci darja yonente bi xadiman ma doon ko xam ne damay sax dàkk di liggéey lil Mustafa ñel ka ñu tànn ka wasit ni te yàlla ma dolli yow yàlla takrima say tiraanga mu ne yàlla nag ma mujjal yow sunu borom tabaraka wa taala ci darja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma doon koo xam ne damay sax dàkk di ko liggéeyal moom mi nga xam ne mooy Mustafa waaye liggéey ba ma koy liggéeyal tiraanga ya ma cee am yépp na nga koy dolli jamono ji nekk wa sayraniya yàlla na mu mujjal bihaa ci daraja yonent bi xadima ma doon ko kuy ma doon kuy liggéeyal lil Moustapha ñeel ko ñu tànn ka wasit ni te yàlla nag ma dolli li nga xam ne takarima mooy say tiranga jamono ju nekk daal maa ngi ñaan nga mujjal mu ci saw bu salaatu goog ma doon koo xam ne fu ma toll damay liggéeyal Moustapha waaye yàlla na ma dolli samay tiranga mu ne yaar naa yow suñu borom salli yàlla na nga julli wa sallim tay salmal sarbadaa ci luy sax ba faw ala li si ci ko yonent bi nga xam ne raasarru oosa mooy njiitu njiit yi ahmada turo mooy ahmad njiit yëpp maanaam ka nekk ca bopp ba nga xam ne moom lañ ci gën a ràññee moo ci mooy saxeem mooy ka ca gën a dijj moom la ci gën a ràññee moo ka ca gën a foor gën cay gànjuru kooku mooy yonent bi moo tax ñu mun yow sunu nga xam ne mooy njiitul njiit yi turam nag mooy ahmad waali salaatu na ñëw ba ci waa këram wa sax bi ak nga xam ne borom njub lañ ña nga xam ne borom njub lañ waxab yàlla na nga may ma anasarata ak ndimbal yoo xam ne dañuy tëbb mu yow sunu borom salaatu na ñëw ba ci waa kër yonent bi ak sahabaam yëpp ñi nga xam ne mu tàggale na borom jub lañ nañ sahaaba yi dañu gindookoon tegee ci yoon siraatu mustaqim ndax yonente baa leen tarbiya tarxiya leen waaye nag ma may ak ndimbal ci yow yàlla fu ma soxlaa ndimbal rek nag moom méngoo sama mbir yëpp may ma ko waaye yàlla nag ma may fa yow maanaam xéewal yoo xam ne jamono yokk dañuy tëbb di ñëw ci man waxaab yàlla nga may lee ñal bi ci darja yonente bi hunaa fii cënoo fii xaddi ak ëllëg yamal ma am sama mbébit bila asan ci ludul benn lor aw nakadi wala ay tiis mu ne yàlla yàlla na nga may ci darja yonente bi fii ak ëllëg yomal xiyam yëpp na nga may ci darja yonente bi mbooloon lu ma mbébét ci nag àllaaxira yëpp ma am ko ta bu ci benn xeeti loor ànd wala ay tiis ndax ñaareel nit balay am mbébét mën naa loru waaye balay am mbébét wala mbébétam bu ñëw itam mën na koo jural ay tiis mu ñaan yàlla asan bu mu ci am aw nakkat bu mu ci am salli yàlla na nga julli wa salliman tey dolli guulu ala mani ci kaw yonente bi nga xam ne sallam nayu na ali coom alxajara doj salaama nayu boo xam ne xat saxaar bu feeñ la ñëpp ko gis lii dafa indi benn mujjisaat ci mujjisaat yonente bi salaay salaam yonent bi mos naa toog doj ñëw nuyu ko yonent bi mos naa toog jëm mi doj ñëw nuyul ko boppam na ko asalaamu aleyka ya nabiyullah nga xam ne kon nii la ko nuyoo nga xam ne kon moom jamaat daat yi yëpp dana ci indi sax ci kanam xasidi gi bu koy tëj lenn ci ay muñ saat yoo xam ne defoon na ko waaye ala kulli haal yonent bi salaay daan na toog ci aw doj doj bi sàbbal sàbbal ngir am yërmande ci waaye léegi la daan na toog ci aw doj maanaam doj bi yonent bi da jog mu koy méttilu loolu ca Makka yonent bi sallallahu alayhi wasallam mos na fay toog Abu Bakrin Umar ak Usman Ali nga xam ne bi yonent bi demee ba bëgg a doj rek jóg rek doj doj di sàbbal waaw yonent bi na ko dalal mu ne tekk ab yonent moo nekk sa kaw ak ñaari way sayit ak ñi nga xam ne dañuy sayit te booba Abu Bakrin ma ngi fa woon Umar Usman Ali kenn ku ci nekk yonent bi waxoon na ne maanaam da ngay sayit te booba maanaam ñoom sax xamaguñ ne danañ sayit te yonent bi ci kaw doj la ko waxee te ngir lan lu doj wi rek yëkkatiku ngir di onk loolu rek moo tax yonent bi wax loolu doj dal nga xam ne kon loolu yéemi la moo tax daan na wax ne doju uhud de bëgg nañu ñu bëgg ko waaw moom uhud doj bu fa nekk maanaam bëgg na ñu bëgg ko moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ma ne sëli yàlla nga julli wasalim wasalima ta nga dooli woode alaa man ci kaw yonent bi nga xam ne sallam nayu na ali ci doj wa salaama nayu boo xam ne xat saari fiñ na bi ali salaatu gi ne ñëw ba ci waa këram bi ak saabaam ya wana ji ne yàlla na nga musal bi jaay ci daat yaay yonent bi min mi anen ci lépp luy coono wa fitne ay fitna mun ne salaatu na ñëw ba ci waa kër yonent bi ak saabaam yëpp te yàlla na mu ko nuyu moom yonent bi xam ngeen kon loolu kooku moom yi lépp lay wax mu ne kon salaat nga ñëw ci wàkkan saabaam bi te yàlla na nga ci darja luy coono ak i fitna sëli yàlla na nga julli wasalima ta nga dolli woon man ci ko yonent bi nga xam ne xanaa jooy na jooyu ñeewantu gis xoon ab ëkk li hubbin ngir bëgg fii ci moom waaye nag mustakinaa mbir moom muy aji dalaat <laughs> mu ngi junj itam benn moxti saat ci muy saat yonent bi sëñ Tuubaa yàgg na ko net li jasbul xulóob mooy bu naa fee gisoon yëxinu la oo yëxinu mooy yonent bi xam nga ne bi mu nekkee a munawara xam nga booba jàkk ji tabaxaguñ ko te yonent bi ci ab ëkk la daan taxaw bi xutba tikki dokkam bi nii léegi nag xam nga jamono day soppeeku léegi nag jamono soppeeku na bañ tabax jàkk ji léegi nag ñu ne nañ toxal ëkk gi ëkk gi nag toxal gi ñu koy toxal nga xam ne ëkkëb garab goo xam ne deene bu yàgg toxal gi ñu koy toxal na léegi loolu moo ko métti te yonent bi daan na taxaw ci kawam léegi taxawatut ci wax nañ ne kerek dafa jooy ba waa mët nañ fu waay toll maanaam yaa ngi koy dégg ñu nekk ci biir jàkk ji ba ñu nekk ci marché sax ñu koy dégg waaw yonent bi na tànn la ko ñaar na ko léegi yow ëkk gi damaa bëgg nag maam euh, lii moom mëntu ñàkk parce que jàkk ji tabax nañ ko waaye benn nga sax fii di ab garab ci jàkk ji nga xam ne ñi di li ci lekk ñuy dugg jàkk ji di la lekk wala benn nga doon garab boo xam ne da ngay sax ci aljana soo la yoma xam ñi dugg aljana di lekk ci garab ga ëk gi na ko yonente bi da ko tànnloo ñaar yi mu ko tànn naa lu dul jeex ci kaw lu jeex ndax su fekkee nekk naa ab garab fii ci na ëdna day jeex garab ga gi na ko yonente bi da ko tànnloo ko tànn naa lu dul ci kaw lu jeex ndax su fekkee nekk naa ab garab fii ci na ënn day jeex ko nag tànn àllaaxira ga nga xam ne du jeex mukk nga xam ne kon garab la goo xam ne ëkk la goo xam ne maanam dafa doon yëkkat di jooy ger lan yonent bi daan xutba daan yëg ci kawam te léegi yéegatut ca wax na ne yonent bi moo ko teg loxo mu dal moo tax Sëñ Tuubaa ne ne moo tax waa Tuubaa ne li hubbin fiihi mustakina nga xam ne yonent bi nee ne su fekkoon ne ba pincam yàlla teguma ko sama loxo ngir mu noppi nee na konoon du mos a noppi ba péncam yàlla léegi ba tey loolu ci mun ci la moo tax ne sëli yàlla nga julli wasaliman te dolli seulement ala man ci kaw yonente bi nga xam ne xannaa binni na ah gisoon yëhinnu la wa yëhinnu mooy binni mu mel ni guni gu ndaw goo xam ne day jooy ba noppi jooy ba sonn ni muy sëqatee ngir am lu ko métti lool loolu muy binni nga xam ne jooy rek lan ñeewantu mu ngi mel ni gune goo xam ne day jooy ka muy jooy mooy yaayam la bëgg gisee ngir yërmande gi dox seen diggante moo tax mu ne alaa man ci kaw yonente bi nga xam ne xannaa xannaa binni na mooy jooy na jooy binni di binni rek gisoon ab ëkk lii hubbin ngir bëgg fii coom waaye nag ba nga ko laalee rek mustakinaan bii aji dal bi alayhi salaat nga ñëw ba ci waa karam wasan bi ak saabaam yëpp te yow yàlla mangal yàlla na nga màngal liyaa ñixal ma bilaa masaqatin ci lu benn coona jamia suxliyaa mboolem li nga xam ne mooy samaw laaj li ma soxla ci yow yëpp yàlla na màngal ci lu benn coona mboolem samay laaj yëpp ci lu benn jafe-jafe na ma ko màngal sëli yàlla nga julli ba tey mu waat ci mujisaat yi ba tey beneen ci kaw asal yàlla nga jul ala awli man ci kaw njël njëlbeen koo xam ne tan tansaqu dana xotteeku al ardu suuf xan hu ko fii xadan ëllëg yawmal qiyaam ya xaq yow yàlla miy dëgg dafay junjaat itam xisa dafa am hadis bu ñëw ne maanaam ëllëg kii njëkk a nga xam ne nit ñëpp suñ dekkee duñ sol dara waaye yonente moom suñu borom may na ko garaat boo xam ne mooy njëkk a nga xam ne wax nañ ne nit ñi fi ñuy dekkee mooy suuf saam saam la ñuy dekkee ngir lan lampangoon ba nii Quraysat ak ba nii Nadir ngir lan ñi génn dem côté Saam moo ta ñu wax ne njël benn pang ëllëg yomal xëyam mooy Saam Saam lay ñëpp di dekkee foofu la ñuy dekkee léegi nag yonent bi mooy njëkk a dekki suñu borom solal ko yére rafet solol ko ay wurus yu gànjur mu jëm pincam yàlla tikki téerig jëfam su ko defee ñeneen ñëpp yun ci ay Ibrahima itam suñu borom doon am na tiraanga juju kon mooy ki nga xam ne suuf su xottee ko kii njëkk génn nit ñëpp di génn seen bàmmeel mel ni ay pompetère kay njëkk génn mooy yonent bi mu li suñ moo tax mu ne sulli yàlla nga julli ala awli man ci kaw njël njëlbéenu njëlbéenu képp koo xam ne euh, tan saxu dana xotteeku al ardu suuf xan walis ko fii xaddin ca biit ëllëg yomal xiyam ba yaa ko yow miy dëgg nga xam ne ki nga xam ne mooy mooy kii njëkk a génn gannaaw ba nga xam ne yàlla dekkil na ñëpp digal na malaaka wal buftu bi ñëpp war a dekke kii njëkk a génn suuf xotteeku mu njëkk a génn kooku mooy yonent bi mu ne sayidna kooku mooy sunu sang maa bu turam mooy Mahamad wax surne yàlla nag ma pang waraa woo ci gannaawam maa xiyaaril awliya ma ànd koog tànneefu awliya gis nga mu ne yonent bi su dekkee rek nag maanaam nag ma pang ma topp ci gannaaw bu ci keneen topp waaye nag na ànd ak tànneefu awliya gis nga sëñ Tuubaa nee na kon fu ne ñaan na yàlla bu yonent bi dekkee moom na ca topp nga xam ne keneen dootu ci topp ku dul moom sëñ Tuubaa moo tax mu ne wax surne yàlla na ma pang war a oo ci gannaawam maa xëyaaril awliya maa di ko tànni awliyaay waaye wajud yàlla nga tabe ma bi ma mel ni ki sahaaba yi fil xur jege la wari daa ak sa waaye nag wa kasarati sabab ak ci bëri yàlla yàlla ma ma mel ni ki sahaaba yi niñ jegee yonent bi jege la yow yàlla waaye nag ak ci niñ làqee sa ngërëm waaye nag nañ bëree yool sahaaba yi nañ bëree yool nañ la jege lépp nag ma def ma mel noonu nga xam ne kon loolu ñal la goo xam ne suñ ko doon jàngat ñaan yu koy la bokk yi tubaarkalla yàlla nañ fi des